asalaamaaleykum mbokki réew mi bitim réew information bii na si ñëpp jot communiqué parti Pastef nee nañu jot nañ ay information ni dafa am ñu nam ma saboté caravane de liberté bi président son ko di def def ay ñaawteef ci yoon bi muy jaar jiiñ leen ko ñoom takkal leen ko kol Ousmane Sonko ngi noonu jëm Kolda ñu gis ay biis yu ñuy wàcce foofu ci àll bi naan ay nerfi lañ ba booy commencé dem foofu di sànnante ak ñoom ay xeer takk der yi ñëw fa Ousmane Sonko dem leen waa Kolda dem leen ngeen gàttanu ji président Ousmane Sonko ba mu dugg Kolda ngeen gunge ko ba mu génn ba eggaat dëkk ba mu jëm sàmm président Ousmane Sonko yéen la war dëkk bu mu jëm ba ba muy génn Sénégal yëpp nañu génn protester président Ousmane Sonko gunge ko ba mu egsi fii ci